asalaamaaleykum monsieur le premier ministre hmm, Modou Dione ñu naan la Boun Abdallah Dione kii sa mbokkum taalibe la xam naa soxlawul sax may présenté wu di wax sama tur waaye genn kilifa gu nekk fii ci tubaa moo ma yónnee woon sam numéro. li tax ma yónnee ma ko yit man maa ko ko laaj waaye ba ma ko koy laaj dama ko wax ne ko laajuma la ko ngir wut ab ak moom laajuma ko ko yit ngir bëgg ko woo ngir wax ko sama yittey bopp waaye situation réew mi laa ko bëgg a wax ak responsabilité ci bi mu ci am ma xam ne administration moom dafay juddu ndax woy juróom wi ko jur bu demee ba am tur woo xam ne ñi ngi ko doon wooye biir gàjje jonn jëf jaa ndax ku xam na doon woon ab maçon ban koy wooye biir gàjje kon administration wërta nekk gan ci moom ma xamal ko ne ko ku mata waxtaanal la ndax xam-xamam ak détermination waratu doon luy yem ci régime bi yow sab xam-xam ñëpp dañ ko war a jëriñoo régime bu fi nekk da ko war a jëriñoo te it mu mel ne responsabilité yi nga war a jël bokkul ak yi ngay jël damay bañ ñu bañ laa def nagu sarax coow lu am wala lu am rek ñu rendi la jox la mbooloo mi def lay saam situation bi fii mu toll ak réew mi fii mu toll kenn warul laa dégg ci jafe-jafe yi ak réew mi fi mu toll nga di ci yëkkati sa kàddu ndax placé woo pour wax ci ndax ñaar mooy da ngaa far ci benn Bokk Yaakaar ba ca dolleeku it da ngaa nekkoon premier ministre ci gouvernement sortant bi fi nekkoon kon placé woo pour wax ci situation élection am na ñeneen ñun dénk loola te ngeen wóolu leen ba dénk leen ko kon placé woo ci di wax ay résultats. xam naa la ndax bi ma nekkee dëkk bu ñu naan Daaru Mbàkke muy bil ci wetu waajur ay dix kilomètres diggante ak waajur dama daan yelwaan si ba Gosaas sa waajur wu góor ak sa waajur wu jigéen accident bi ñu faatoo yaa yoroon oto bi di ko dawal seen kër yelwaan si naa fa ba tàyyi kon du gan ma yaakaar na sañ naa laa digal ndax sama mbokkum taalibe bi nga nag sëñ Axma mi nga sukk jébbalu sëñ Moustapha Bassirou waajuram lañ ma tuddee sëñ Moussa mii kilifaam di sama sëriñ kon waxuma ngir di wax jàmbur waaye damay njort ne sañ na maa wax ak sama mbokkum taalibe ngir laabire ko situation réew mi fi mu toll première responsabilité bi yow la ndax yaa njëkk génn ci télévision ci Sénégal jox ay résultats bu réew mi tàkkoon am nga ci responsabilité te dañ laa xasa a adressé Daaru Minam te sëñ Bassirou Rolam moo doonoon Europe pour di ñëw kenn mës sa dégg Daaru Minam ci loolu kon ak far bu mu la dugal ci yenn yi ak lu gën a ak lu mën a xew ci àdduna yi pouvoir àdduna yi la ci jiitu mooy xamal fi nga bokk ak lan moo la dugal daaru mi na mas na maa dégg sëñ bi di la nettali histoire ba ba ngay jooy jooy yi bu mu doon sa yitte na histoire bi dugg ci sa bopp bi kon yu bari doo ko def waaye wax la nga jooy ci jataay ba la yem waaye la sabab jooy ya moo war di nekk jeexat ci yow bés bu set nga xam ne doonoo même porte kii ci daar minam da nga cee bokk Macky Sall da ko war a wax li fi nekk mu jàng ci yow ab yar jàng ci yow ak njub jàng ci yow ak teggin jàng ci yow ak maandu waaye kenn warul laa dégg ci situation réew mi fi mu toll looloo tax kilifa googu bi ñu toogee ma ne ko man de boo ma joxee numéro dinaa ko yónnee bataaxal boo xam ne ma ci paree man na maa supprimer numéro téléphone am ndax soxlawuma ko juróom-ñaari at la toog ci réew mi soxlawuma numéro am numéro bi li ma ko doyee mooy fexe ko yónnee message boo xam ne bu ma jotoon numéro Macky Sall yi noonu laa ko yónnee. situation réew fi mu toll sénégalais yi ñooy atte il faut que d'abord ngeen bàyyi sénégalais yi ñu am conscience tranquille ci régler atte liñ bëgg a def sénégalais yi folli tawu leen ndax ku fi jëlee du juuf jëlee fi Ablaye wàdd jëlee fi Macky Sall du la tax ndax ab Ablaye Wade moo defar Macky Sall ni mu defaree tunnel yi ak autoroute yi noonu la defaree Macky Sall mii daf ko tabax ndax ndob ak tànk gu ne takkal na ko ko fi te dañoo xeexee jëlee ko fi kon folli du seen problème falit du seen problème ndax dañoo faloon Senghor far Abdou Diouf far Ablaye Wade fal Macky Sall mi kon falaat keneen du seen problème waaye li gën a am solo mooy ci histoire senegal ci taarix ñu war koo bind ëllëg say sët ak say sëtaat di ko dégg ñu ne lii déggoon nañ ko ci Boun Abdallah Dionne lii moo tax ma jël sa numéro bi ngir yónnee la message bi ginnaaw message bi nag soxlawuma tontu lu jóge ci yow di ñëw ci man waaye dama la ko bëgg a wax ngir mu dugg ci sa bopp xamal la ne la ba ci jiitu ab jullit nga jullit dafa am ay charte yu la lënkale ak moom am ay charte yoo xam ne boo xasee jéggi charte yi doonatu ab jullit ak murit it daa am charte yu la lënkale ak moom te yàlla dogal na ab morit nga ñaar yi nag moo tënk mooy ab jullit nga ab murit nga ñaar yu ci nekk nag dafa am charte nattal nattal sa bopp ci ñaar yooyu lan nga ciy doxal ba nga xam ne décret boo mën a tiim ci àdduna bàyyil xel ne yow dong boo ko tiimee am na ko la ñaareel suñ borom mi ngi lay gis te loo bind xam na ko ca heure ba ca waxtu wa ca saaja waxtu wuñ la tëralee ci sa kuusu bàmmeel tëralee sa bàmmeel sun borom ne la pëkk-pëkk nga jàkkaarloog moom kenn kuy rendre compte ko dul yow amul kon situation réew mi am nga ci xalaat te tey jii boo ne woon bëreet suñu borom jël sa bakkan bi Tuubaa nga yaakaar fii ngay ñëw tëdd kon situation réew mi am nga ci xalaat ab jullit nga ab murit nga am na lu sa diggante ak sénégalais yi ak njaboot la fi ñëpp am noonu doon fi amul njaboot mun doon taal réew mi tey ji da ngay taal sa oto dem ba bàyyi woo fi njaboot gooy mën a sàmm ko sa jëmmi bopp ngay gàddu dem ak sa soxna ñun ñu des njaboot responsabilité boobu ñu fi am moom lañ bëgg nga di ko dugal ci sa bopp bi te xam ne nun duñ ay jaayil wala ñu doon ay xar yoo xam dañ ñuy saam dañu daggat daggatee di yóbbu situation bi fi mu toll nga war a xool bërki démb ñëw nga tuubaa ay yuuxoo jub ci sa jëmm jooju kenn yéenewu la ko waaye Macky Sall mii ngay àndal la waa Touba bëggut te yow nga nekk taalibe sëñ Touba di murit nit ñi yéene la ndam kenn yuuxoo wala ngir sa jëm waaye dañ laa yuuxoo ngir ka ngay défendre yow nga xam ne kooku défendre wut saaga nañ la xas nañ la yuuxoo nañ la traité nañ la lu bon te jëru ko sa jëmm ji nga war a gën a fonk ci jëmmi Macky Sall ji looloo waral ma ne naa la yónnee bataaxal bi ngir nga diglu ko mu dugg ci sa bopp bi nga xam ne asgor nga la ci jiitu ab jullit nga ab taalibe nga ñett yi nag bu doxee sa diggante yow duma ko weccu nit koo xamante ne bii pouvoir bu àdduna bi képp moo ñu boole ak i décret Abdou Diouf ana ñam siñoo loon décret ya tey jii Senghor ana ñam siñoo loon décret ya Ablaye Wade ana ñam siñoo loon décret ya Sall mi ci la bokk fu Macky Sall mujj ak Ablaye Wade Macky Sall ñim signal décret yi suba noonu lay demee day xëy dootu mën a yoru bigam bii di signé benn décret yow da ngaa war a bokk ci ñi nga xam ne régime bu fi mën a toogati ëllëg dana soxla sab xam ndax lu mu boni boni gone nga am nga xam-xam nga engagement macha allah xel mi rafet na li ci gën a am solo nag mooy da ngay jëfandikoo sam xel ca nam gën a rafete waaye bul xool ne lii sañ nga ko yaa gën a placé yaay premier ministre boo xam ne ñu dégg la Macky Sall def la nagu sarax woo xamante ne lu mën a xew mu denc boppam ak jëmmam génn ne la waxal. nga génn wax ko ci noo xam ne Sénégalais yëpp ay dar seen gémmiñ Sénégalais bu ñu leen saa quatre-vingt-dix-neuf yëpp dem na am na njàq rek mbetteel ci yow ndax dañ ne premier ministre bi ñu xamoon ci biñ koy doog a nommé nga jóge njaareem siyaare sëñ Muntaxa ca koor googa ñëw Touba siyaare sa ñaari wayjur fii ci armeel yi ah, ñëpp daan ne ah am murit lañ fal taalibe sëñ Touba lañ fal ñëpp am ci yow yaakaar yow lu mën a xewit sa ndey ak sa bàyyi ngi ñu denc ci barab yi nga war a xam ne kon Touba gi mooy dëkk rawukaay mooy dëkk bi ñëpp war a jëm si ëllëg ndax ba nga amee sa ñaari wayjur ñu wàccub liggéey fii nga leen indi denc leen fi te sa jëmm jooju it boo wàccub liggéey fii nga bëgg ñu indi leen fi nun ñii noonu ci yi yow am na loola lënkale waxuma ak Macky Sall personnellement ndax bu ma amoon numéro bataaxal bi ma koy njëkk yónnee mooy na dawal yërmande ci jullit yi yow nag ñaar dala linki la mooy da ngaa doonu jullit doonu murit damay waxtaan a yow ci ñaar ba ñett ba ci njëkk sama mbokkum jullit nga sañ naa laa labiré ba ca dolleeku it sama mbokkum tali bi nga waaye ba ko ñettal mooy réew mi ñu nekk président sortan bi fi nekkoon da nekkoon premier ministre ci sénégalais yi nga jiite ci laa bokk kon sañ na ma am xalaat ci ñett yi digal la ci duma la wax benn kàddu nag muy luy jóge ci yow di ñëw ci man wala njariñ loo xam ne sàkku naa ko ci yow loolu yitteelu ma waaye damaa jàpp ne bu réew mi amee jàmm dinaa ci dugg bu réew mi naatee dinaa ci dugg looloo sabab ci luy indi jàmm ko naata nga ci laay waxee ak yow situation réew mi neutre ci placé woo pour wax ci ay élection ndax danga far bayil sénégalais yi ñu suisé bu deuxième mandat jaadoo ñoom ñooy atte nañ fi jële woon Abdou Diouf ak Ablaye Wade jële fi Macky Sall mi tawu leen waaye nag dama bëgg jëlin wi rafet ba nga xam ne ëllëg bu ñu naan premier ministre bu Sénégal bu ñu la tegoo nii sa biographie nañ amee woon yaakaar ca koor gan la fale woon man ba ngay ñëw njaareem fa ma fekk sëñ bi ñaana la jullit yi murid yi talib yi Sénégal gépp am ci yow yaakaar ñu ne fal nañ ko maandu fal nañ ko jub ko am engagement nga déparé sa oto njaareem ñëw fii ci armel yi siyaare sa ndey ak sa baay ci biir armel yi jóge fa soobu ci sab liggéey engagé wu ñu ne premier ministre du politique du far nga xëy dugg ca yooyu yëpp di politique far nekk ca yooya loolu lañ bëggul mu dugg ci yow yéenewuma ci sa der bi nga wàcc di am kersak duggaat Tuubaa di siyaare génn kilifa dama bëgg nga firi kër goo dugg mu mel na sa kër mu mel na sa kër ndey mel na sa kër baay nga xam ne ab taalibe nga waaye lii nii la Macky Sall defloo ci miir bi la la jëmee bul nangu kenn def la nagu sarax yow lu mën a xewit jëlal roolub daaru mi nam mooy di ñaw ak a boole ak dajalewaat lu tasaara woon nga fexe koo defar waaye bul dugg ci lu yàq bul dugg ci leneen looloo taxoon ma yónnee la message bi bu ma paree ak yow it incha allahu rabbi numéro bi lu may supprimer la ndax soxla uma ko sama téléphone waaye message bi laa bëggoon mu wàcc ci sa téléphone jërëjëf